yéeni kaay nag dañ koy daal di tàmbale ak Walf Quotidien nag euh, daal di bind ci xëtam euh, rejet pourvoi en cassation bu Barthélemy Diaz yéeni kaay bi sax euh, du ñu xamal leen ni jamono ji kii di Khalifa Sall mi ngi ci anam yu doy waar Sud Quotidien moom it daal di bind ci xëtam Cour suprême ni fa jot na rejeté pourvoi en cassation bu Barthélemy Diaz ba tax na sax suñu naataango yi jàpp ne ni kii di mi ngi ci en euh, danger ndaxte nag amaana dana ñàkk mandat mairie bu Ndakaaru ahit euh, député ba tax na sax euh, suñuy naataangoo yi duñu xamante ni jamono ji euh, président Macky Sall ak jëwriñ euh, bi ñu dénk lépp lu ñeel wàllu bu yoon di ay Tall Sall ñoom ñoo ci yee yàbbi xam rek ndax kii di Barthélémy Dias dana woy nekk maire wala sax député fii ci Sénégal enquête moom it daal di bind ci mbiru Ndiaga Diouf duñu xamal ne sax ni kii di Barthélémy Dias jamono ji ñaaxi mandam nag kenn xamut fi muy mujjee 24 heures euh, di ko feelu nag euh, di wax ci mbirub euh, Ndiaga Diouf ak it volonté nag ñi daal di casser jugement en appel ba tax na sax yéenekaay bi duñu xamal ni dafa mel ni Barthélemy Diaz mi ngi ci yoonu tànk kii di Khalifa Sall gannaaw kii di niki atum ni mille atum 2019 jotoon na ñàkk poste député ma poste mairie kay ñi daal di wax ci laas moom it euh, daal di bind ci mbirub euh, Barthélemy Diaz du ñu xamal ni sax ni cour suprême jot na dëggal euh, cour d'appel bu Ndakaaru foo tamit di wax ci mbirub Ndiaga Diouf ci yéenekaay bi sax avocat général wax na ci mbir moomule waaye tamit maître Papa Mor di avocat partie civile yéena ci yàbbi Euh, kii di maître Khoureyssi Ba nekk avocat Barth wax na ni ni yoonu jotut wegg ak ak yelleefu kii di euh, client source a nag euh, daal di di ñu xamal ni sax ni euh, Ndella Madior Diouf nag euh, danañ ko defeere ni ki mardi bii di ñëw gannaaw rek mbirum yu doy waar yi nga xamante ne jot nañ ko nemmeeku ca pouponnière bu ndeela Madior Diouf te nekk foofee ca kër ca Sacré Cœur te ñu duppee ko sax kër yërmande li ñuy ñaawlu rek ci mbir mi ci yéenekaay bi moo di kii di Ndella Madior Diouf nag jot na fa yor ay xale te amut autorisation yoon le quotidien quotidien nag euh, dañu wax ci jiyee ba nga xamante ne moom moo am ci yoon île Canaries euh, yéen kay bi sax euh, du ñu xamal ne ni at mi nag lu tollook 7000 doomu aadama jot nañ ci ñàkk seeni bakkan waaye tamit ay gaal yu bëri nag jot nañu réer ci géej gi ci lu ñeel wàllub mbëkk mi. Euh, verdict nag di ñu wax wàllub politique du ñu xamal ne sax ni congrès ordinaire démocrate réformateur yi nag jot nañ investir kii di amado Ba. le soleil di wax ci exploitation pétrole projet Sangomar leexal gi nag mi ngi ci biir yéenekaay bi stade sport euh, kii di sport nag Elimane euh, Iso ak Pape amaan amaana sax dinañ dem euh, Angleterre li ni nag nekk ab laaj ba nga xamante ne stade jot na ko samp li moo nekkoon li gën fës ci revue de titre fii ci Walf FM 99.0 ñu joxante dig daje ba 13h incha allah di jaajëfal bu baax a baax Fama Khadijou